nekk président de la république comme président Macky Sall wala Abdou Diouf servir Sénégal avec honneur yëpp lu ñu jox lépp nga pare ñu jox la ay moyen nga pare dem nangu nekk envoyé spécial. wala nga pare ndam nekk président francophonie mu nekk récompense boo xamante ne dañ leen ne ah yow vraiment bu mu fi nekkee da nga défendre suñu intérêt ba ñu kontaan xam na yow. élève bu baax. mais est-ce que mën nga ko limiter foofu rek. non parce que ku mel euh, xam ne même s'il n'a pas été euh, xam ne Sénégal yu bëri amoon nañu ay tamit du pour tout ça moo doon jàpp ne xëy na mën na diriger institution internationale. gis nga lan moo tax déjà ñu perte pouvoir yi mooy ñàkk pexe xam nga euh, Léopold Sédar Senghor bu mu diriger Sénégal yi indépendance 3 millions la ñu woon. Mhm. mu nekk di diriger 3 millions de personnes. dem élection 1960 boo xamante ne élection parlementaire la woon 118 personnes ñoo ko votel ay représentant euh, exécutifs locaux ak députés yi mu ñëw 1963 moom dong nekk candidat mu ñëw élection bu si topp 1968 moom dong mu nekk candidat 1973 moom dong mu nekk candidat gagné léegi 1978 sénégalais yi jóge nañ 3 millions dem 4 millions dëkk bi commencé bëri nit contestation yi commencé bëri mu mhm. am jaaxle mu gaawantu jox pouvoir bi Abdou Diouf Abdou Diouf aussi wadd bu muy jël pouvoir bi Sénégal commencé woon na yaatu mhm. jeunesse yi commencé bëri il ne pouvait pas en faire autrement muy ñoom ñaar ñëpp il ne pouvait rien faire parce que dafa tombé ay tension Senghor déjà 63 68 tension yu metti plus de 40 personnes dee en 1963 si dëkk boo xamante ne euh, bëreeguñu Abdou Diouf pareil 1993 station yu doy waar ba ñu rey fi maître Babacar Seye. 1988 mhm. ay problème yi dul jeex daanam ba ñoom ñu tënk loolu loolu moo tax mu xamuñu woon lu ñuy def. mais reconnaît au moins qu'on a eu euh, parenthèse reconnaît au moins qu'on a eu de grands hommes qui ont su partir quand il le fallait Abdoulaye yaa ngi koy wax Senghor quand il a senti que ne yëf mi commencé def kii dafa joxe pouvoir bi Abdou Diouf quand il a perdu il a accepté Abdoulaye Wade euh, pareil Macky Sall coow li bëri woon ni ñu am ay crainte. nee na renoncé na troisième candidature maanaam ku ci nekk sa fin xëy na mën na expliquer euh, dayo bi la bi la bitim réew jox. waaw léegi loolu mën nañ ne lu baax la waaye baaxaay boobu dañu war a éviter mu nekk piège bi maanaam saa yu Sénégal yi demee ba mer. Mhm. ba waa bitim réew ñoo xamante ne ñoom ñoo am intérêt Sénégal sant na Sénégal mu ngi waaj a ndërmeelu. Mhm. ñu jox ñooñu ordre bàyyi leen. parce que su ngeen kon ne ils agissent les ordres de l'Occident ba tey. ils agissent sous les ordres de l'Occident hmm? loolu laa gëm parce que joxuñu benn respect sénégalais yi parce que nu ñuy doxalee dëkk bi xam nga dëkk suñu la ko dénkee ñu ne alal gu ñu la dénk moomoo ko da nga war a rendre compte. Hmm. soo fi jógee mais du ñu rendre compte ñoom du ñu rendre compte ñu ñu àndal du ñu rendre compte ñu ñu dénkoon du ñu rendre compte maintenant seen grandeur dem bi lenn la si waaye li si ëppoon solo mooy gannaaw gi ngeen ma dénkee ñaari dërëm ngeen ma dénkoon. liggéey naa si lii fii laa ko dugal lii moo des mais loolu ku ko deful wala suñu la koy def sax nga tiit yow am na lu def yow. xëy na les présidents non mais euh, ñiy gouverner à chaque fois qu'il a chute du pouvoir dañu am nañu ci rendre compte. non Sénégal on l'a vu avec Abdou Diouf bi mu daanoo ñu ba dem nañu prison Mbaye Diouf moo ci jiitu woon à Thiès avec Abdoulaye Wade aussi bi mu daanoo on a vu que ne Karim Wade a été condamné. Euh, ak ñeneen ak ñoo xam ne ils ont été inquiétés. waaw xam nga euh, rendre compte bi rendre wuñ compte peuple bi mais ñu ngi rendre compte le leen pour ñëw jàppale ko suñu bañee loolu ñu sanctionné leen ku si nangu rek yaa ngi ci biir duñu def dara Abdoulaye Wade def na ko Macky Sall def na ko am na ñoo xamante ne def nañ fi lu ne weng mhm. mais fii la leen bàyyi dam xool ku ko neex ñoo xamante ne nangu nañu résister bañ mu téye leen donc rendre compte sénégale yi la ñuy wax mais duñ ko def te waruñu xaar sax ba pouvoir bu bees ñëw soxla seen base politique di leen neexal pour ñu xool nu ñuy rendre compte ah. donc Sénégal soo ko xoolaatee mooy comme ni ñu koy wax tookee bu nekk biir Sénégal vraiment il faut ñu faj ko maintenant loolu euh, idéologie la idéologie nag soo koy wax mooy loo xamante ne dënk gëm soo ko xasee gëm da ngay jàpp ne lépp doxalin bu jaax foofu rek baax na képp koo xamante ne mu ngi wax lu jegewul loolu nga ne ko ah kii de xamul état wala kii de xamul dëkk nu muy doxe mm-hmm. mais ñoom loolu ñu jàpp ne loolu mooy état loolu moo dox loolu moo baaxul si dëkk bi moo tax ñun ñu jàpp ne wax nañ am sañ-sañ proposer lu bees mm-hmm. proposer lu nga xamante ne dañuy tëggaat ni état war a doxee dañuy tëggaat ni président de la république lan mooy légitimité am lan mooy rôle am mooy contre pouvoir bi député yi lan mooy seen rôle mm-hmm. maire yi lan mooy seen rôle justice bi lan mooy seen rôle proposition yooyu nag la ñu bëgg teg ci table bi.